Touba Mouré dëkk la boo xam ni mi ngi nekkee ci département bu saas diggante Kolobane Saloum ak Xelkom bu Serigne Saliou Mbacké Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre moo ko sanc ci atum 2002. Jaka taxaw ndaw ñi di leen jàngal alxuraanul karim bañ mokkal ko ci mokkal nu sell te wér waaye taxaw leen yée leen ci àddina di leen tarbiya waaye jàngal leen li nga xam ne moom moo di liggéey ba bu noppee ci ñoom ñu nekk ndaw yoo xam ne yu mat sëkk la ñuy doon yu mën a jariñ seen réew waaye xam bu baax a baax seen diine lool nag ñu ngi koy amal ci daara ji ci ay jàngalekat yoo xam ni sëriñ bi moo leen fi tekk di leen fay yoral leen seen lépp waaye mboolem ñi fi jàngee duñu fay dara te sëriñ bi moo leen gàddul lépp loo xam ne moo jëm ci seenug dund ak seenu nekkin ngir seenu jàng lépp mën a jekk

ci nawetu atum 2023 bi mu mel ni liggéeyu tool yi xaw naa sori lool am na ci lool sax ñëwoon nañ doon ko ko wan di ko leeral fu liggéeyu tool yi toll. am mbay nag bokk na ci li nga xam ni day suqali am réew moo tax sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadr bokk na ci ñi nga xamante ni dañuy participer bu baax a baax ci koom-koomu réew mi ci dugal seen loxo ci mbayum réew mi. fanweer waaye fukk ak fukk yi bi ka alayka wa raditu anka sëriñ ba Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadr yëmul ci jàngale gi rek ci dëkk bi ndax am na fi ay tool yu yaatoo yaatu yoo xam ni at mu jot dafiy bay li nga xam ne moom moo di gerte ak dugub ak yeneen yi ci aajow muy tool yoo xamante ni at mu jot li nga xam ne moom la fiy bayee day yaatu lool. mbay moomu bari na loo xam ne moom moo ci bàyyeekoo lu ci ëpp addiya la koy defaat jébbal ko ay sëriñam ak ay kilifaam leneen li mu jébbal ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi taxaw leen bu baax a baax ci seenu dund. li

لم يكن مرتجا jaamu yàlla gu mat sëkk taxaw temb ci mboolem ndigal yi nga xam ne mu ngi bàyyeekoo ci ay kilifaam rawatina xalif général des mourides daara ji nag benn la rek ci daara yi nga xam ne sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir am na ko ci réew mi di fa jàngale alxuraanul karim di fa yar di fa tarbiya boole ci am fa ay tool di bay di liggéey wa